salaamu asalaamualeykum wa rahmatullah wàllu xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tous les internautes qui nous suivent ci biir chain bi di leen jox seen wàccuwaay waa tey on parle du cas de viol mu nekk euh, un thème très récurrent ndaxte ñun temps yi dañoo seetlu ne daal vraiment les cas de viol là c'est devenu récurrent dafa gën a yokku chaque jour di nga dégg deux ou trois viols suivi de meurtre muy lu ñu jaaxal di lu ñu metti ñun jigéen ñi parce que benn yaay nelawatul nul ne à l'abri parce que bu demee ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo la war a defendre wala yooyu ñooy ñëw di la violer dina rey kon loolu lu doy waar la parce que si on comprend bien le plus souvent surtout yi fi am semaine bi euh, on a impliqué le gardien xamuñu def na xamuñu deful kenn ka ca des ki am à Thiès faram moo ko rey violé ko ndaxte cas de viol man dafa nekk lu ma metti parce que traumatisme la ci jigéen parce que bu ñu demee ba vingt et unième siècle jigéen war am une certaine liberté ñu war ko may jàmm ñu di ko viole di ko rey loolu moom wax dëgg yàlla lu doye doye waar la te viol dafa nekk loo xam ne Euh, dafay ci sa ci psychisme nit ki dafa am lum ci bàyyi psychologiquement buñ la violé tu es abattu à vie parce que viol yaa a beaucoup de conséquences soit ñu violé la rey la loolu moom kenn waxatu ko yow pare nga ñu violé la bàyyi la ak une grossesse ça devient une grossesse non désirée nga am problème ca grossesse booba doo ko bëgg parce que tu ne l'as pas demandé nga dikk ko jéem a yàq dee ca perte sa vie ñenn ñi dinañ ko jéem a yàq ba son duñ ko mën bés bu doom ji juddoo ñu jël ko di ko sànni buñ la jàppee na la raawu tëj ca kaso ba boobu fekk kala kala violé woon mu mu ngi en liberté di noy ne air bu neex loolu tamit lu war a seetaat la gouvernement bi def ci war a jóg parce que y a yoo xam ne bu ñu demee ba grossesse bi aboutir xamuñu nuñ koy def dañuy obligé jël doom ji sànni ko parce que ils s'attendaient pas en ça amuñu moyens yi amuñu luñ ko yore kel cautionné wul jur sànni mais jur sànni bi ci dëkk bi nañ seetli ko lal lan la parce que tamit violé nit ki mu am ca doom nga lànk tu ne prends pas wala mu nekk une bonne dans une maison di liggéey ñu violé ko fa muy mu doom di juddu xamul nu mu koy def mu jël sànni ñu ne raw ci kaso ba tëj kenn cautionné wul sànni doom mais ña koy def aussi nañu xool ñooñu ñan la parce que les euh, responsabilités son partagé góor gu la ko def il va à ses occupations yow ñu ne la rawu ci kaso bi tëj la toroxal la tegal teg la devant tribunal ñëpp di la ngawti ngawtee loolu lu mat a seet la te loolu yëpp ñu ngi koy teg jigéen ñi cas de viol yi am ci dëkk bi metti na boo ci deewulee amoo ci grossesse psychologiquement yow sa àddina yàqu na à vie nag ku nekk xam na ne loolu dafa metti ci doomu aadama su ko defee jigéen jooju dootul nekk ti nit dina dem ba day bañ góor du bëggati sëy banir góor ci àddinaam xam nga loolu àq bu rëy a rëy la war nañ ko seetaat les bonnes qui travaillent dans les maisons là ci kër ga lañ leen di ëmbale mais ki lay ëmbal daf lay ëmbal ba pare bañ dàqale ci biti yow nga dem ak sa grossesse doo xam noo koy def sans sans sans aucun sou doo ko mën a mëne à terme nga di ko yàq te boo ko yàqee dee xaj na ci nga dem ak moom bu wasin del sànni ñu ne la raw ci kaso bi loolu yëpp lu mat a seet la na nañuy jël responsable di ko partager ku ko defati nañ la jënti ba xam ki ko ëmbal kan la moom itamit lu ñu teg ndaw si rek ñu teg ko ko dama naan tous les jours nit bu demee bay sànni doomam amul lu ko gënal ku xam jur doom ni mu mettee wax dëgg yàlla doom dafa metti nga jël ko rey ko sànni ko amoo lu la gënal tu n'as pas le choix kenn cautionné ko kenn àndul ci lu ñuy def mais cas ultime la cas extrême la mu ngi mel ni nit ku xaru nga ñëw di ko yedd koo gis mu xaru mus na yedd ku xaru boo yeggee fa kooku yeggoon rek di nga xaru mooy lii dal xale yu jigéen yi il est temps que au vingt et unième siècle barbarisme boobu ñu bannir ko parfois même c'est des cas d'inceste nga yegg ci koo xam ne ci kawam waroo ci yegg ba pare jël ko rey ko loolu moom vraiment kenn xamul lan la te c'est des cas qui se multiplient qui se multiplient temps moom cas de viol yi dafa mel ni yenn góor ñi dañu rakkaaju man je pense que ces hommes là sont malades parce que ku bëgg assouvir ses besoins mais am nga foo ko mun a defee na ma yàlla baal yaa de am na ay xale yu jigéen yi taxawaalu mais nga dem foofu ah une bonne chose mais moo gën nga dem ci ñi nga xam ne ñu loolu lañ fi nekkee di jaay seen bopp nga dem fa assouvir tes besoins moo gën nga fekk une innocente doomu jàmbur joo xam ne dafa yiw comme kii ñu ko mujjee def niñ ko xamee koo wax mu ne dafa jullite ak muuraayam nga dem non seulement salir nga ko yàq nga àddinaam mais nga jël ko rey ko xanaa boo violé nit ki sax nga bàyyi ko ak lew geera moom mais le plus souvent day nekk koo xam ne bu feeñee lu doy waar lay doon ku la xam euh, un proche euh, un parent mu nekk cas d'inceste looloo tax ñu di ko def moo tax il est temps ñun parents yi nañ redoubler de vigilance ci xale yi bu ñu wóolu kenn waaw bu ñu wóolu kenn parce que euh, ku nekk mën na la mën na ko def sa doom ku ne rek nag parce que dafa y a des hommes qui sont malades dans ce pays et qui d'être soignés am na góor ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi di taxawaalu te on devait les interner dans des asiles parce que ñoo gën a feebar ñi nekk ci asile te dof nañ ko wax dee nit ñi seen xol yi jeex na tàkk tàkk tàkk lii moom kenn xamul lan la barbarisme la ñu nekk vingt et unième siècle ñuy continuer di violer jigéen di ko rey c'est du n'importe quoi gouvernement bi ci boppam il est interpellé moo ci war a jóg prendre des sanctions draconiennes jog ci ak pexe yu rëy rëy rëy parce que lii moom si ça continue de dina dem ba jigéen dootul taxawaalu ci dëkk bi wax dëgg yàlla metti nañu torop waaw ñu ñëw ci photo yi xale yi di def léegi di yónnee gis nga loolu il est temps que les gens xale yu jigéen yi dañ bàyyi loolu parce que danger bu rëy rëy la te jigéen amul lu may boppam dem ba say euh, partie intime di génn dans les réseaux sociaux ñu di ko wone te am na fi nit ñi nañu réglé parce que mën nga ko def yónnee ko sa jëkkër am na góor ñu feebar góor ñu manqué nga xuloog ñoom wala nga tàggoog ñoom ñu jël sa photo sànni ko dans les réseaux sociaux loolu am na nga am sa xarit nga defee ne xarit la ndekete ku la bañ la mu ubbi sa portable parce que am na xarit yoo xam ne dañu dem ba ca euh, portable seen portable dañ koy awarte abal ma ma woote abal ma ma lii gaawantu dugg sa galerie xool say photo envoyé ko dans les réseaux sociaux yàq sa àddina nga am wujj jël say photo yónnee sa jëkkër mu piano te gis sa photo wala say video ci sa portable yu jëkkër parce que jigéen ñi dañ koy defan ah, ñu jël ko yónnee ko dans les réseaux sociaux mais sumee ko di yónnee ay nit mooy lan nañu bàyyi loolu am na ñoo xam ne sax far lay doon nga yónnee ko te encore une fois comme ni nga ko waxee yow nee nga portable bi mën na réer effectivement mën na réer nit jël ko for ko jël photo yi publier ko mën nañ ko sàcc mën na dem ba euh, yàqu nga yóbbu ko di ko réparer ka kay réparé gis photo ya publier ko te lan moo ko fi jar ñu yàq sa addina pour quelques minutes loolu daray àddina jaru ko dafa am genre vidéo yoo xam ne sax nit ku yiw sax waru koy bëgg comme ni ko oustaz Alioune Sall waxee ay vidéo pornographique ay vidéo yu bon yooyu li ko nit di doy buñ la ko yónnee sax na lii même pas effacé ko en tout cas je yàq na fi àddina yi nit te lépp ñoo koy def il est temps que xale yu jigéen ñi tamit xam seen bopp bàyyi ay photo nu yu ñu yónnee photo nu mooy lan sa jëkkër bu nekkee ba extérieur nga xaar ko ba mu ñëw mais jarul yónnee ay vidéo parce que àddina kenn xamul da ngeen dem ba ci biir tàggoo jëkkër ji ci boppam mun na jël foto yi balancé ko dans les réseaux sociaux te ñoo ñuy def loolu tamit ñu ñàkk sutura lañu ñoom itam bu fekkee ne lu baax la ñuy def wala foog nañu ne lu baax la ñuy def wala kooku la ñuy xeex seen bopp lañ koy def parce que ku weer doomu aadama julliti yàlla yi yàlla moo leen suturaal looloo tax mu sàkk guddi ak bëccëg ku leen nar a toroxal nag yàlla tamit dina la toroxal moo tax nañ bàyyi loolu nañ bàyyi weer nit wili pande nit gaawantu gis audio bu doy waar nga gaawantu yónnee ko dal di koy jël rek dal di koy yónnee nit ñi balancé ko xarit mën na la ko def wujj mën na la ko def jëkkër joo tàggool mën na la ko def loolu yëpp am na fi mun nañu sàcc portable ba mun na réer moo tax euh, portable man man sax ay sàcc portable yooyu dama ko waxul mais nit ki yàlla kenn xamul parce que dee dafay ñëw à tout moment ci mbetteel mën nga xëy rek dem fii rek ni xarit dee ñu ubbi sa portable gis ca loo xam ne lu doy waar la nit ki ne sóoraale loolu man waxuma sax euh, les réseaux sociaux mais dee laa ci jëkk sooraale ah nga xëy dee di kilifa ñu ubbi sa portable te ku dee ñu ubbi sa portable nañ waxante dëgg fekk ci lu kenn xamul du n'importe quoi ñu koy ubbi dinañ am gàcce dinañ ne ah ndekete sama yaay wala sama papa wala sama kii nii la meloon na nit ñi sóoraale loolu dee day ñëw ci mbetteel de lu waay di def na ko xalaat na ko sóoraale il est temps que nit ñi bàyyi lu bon nañu bàyyi ay audio yu bon di ko yónnente vidéo yu nuy di ko yónnente nit day wormaal boppam nit day suturaal boppam su meeku di photo di di di kii loolu mooy lan nit ñi nañu gëm seen bopp waaye te bàyyi yenn yi waaw may gërëm ñëpp di balu àq ñëpp si j'ai eu daa sans conscience maa ngi koy maa ngi koy baalu bu baax a baax a baax bëgg a defar rek ak bëgg a wax pour nit ñu jub rek moo ma ci euh, xiir may baalu ñëpp àq di nuyu tous les internautes de de de lu xew TV et bonne journée.